le débat du jour tey ñu tànn di waxtaanee mbirum euh, monde rural maanaam mbirum mbay mi ak ñi nga xam ne ñoo ca nekk ñi féete ñëpp ci àll bi ndaxte xam nañ ne ren ji moom taw dafa xaw a tardé lool ci réew mi am sax yenn euh, gox yu ne si réew mi ñu ne moom taw awagu fa ba léegi loolu nag di jur ay jafe-jafe ci ñi nga xam ne ñooy baykat yi ndaxte dund gi dafay daal di jafe mais aussi yaakaar nga ñu amoon ci lañ ci xam ne moom la ñuy ji day xaw a euh, ñàkk solo lool lan la nekk lan moo ci nar nekk taxawaay taxawaayu nguur gi loolu lañ nar a waxtaane tey ma am mbégte loolu di ci ànd ak jàlloo euh, Diallo Youssou jàll moom mooy conseil technique numéro un nekk ca fii di ministère de l' agriculture Youssou jàll maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. Eh, maa ngi lay fay. Hmm. waxtaan wi ak Diéry euh, Gaye Diéry moom mi ngi nekk ci CNCR muy conseil national de concertation coopération des ruraux sëñ bi Gaye maa ngi la euh, sant ci. woote bi. jërëjëf alors euh, Youssou ci yow sax la ñuy commencé suñu waxtaan euh, maa ngi tudd sànq ne taw dafa xaw a tardé ci réew mi euh, xaw ma nu koy nu ngeen koy tuddee yéen techniciens yi. Mm-hmm. léegi kay li ñuy laaj mooy ca ministère situation bi ngeen di jëlee ci monde rural boo ko doon tënk lan lay doon bi situation bi ñu toll nii. waaw waaw maa ngi lay sant di la gërëm. Mm-hmm. ci turu ministre de l' agriculture. et le ministre Pape Abdoulaye Seck. Mm-hmm. ak mboolem ñu nekk ci ministère bi. wax nga dëgg nawet bi ren euh, xaw na jaaxal nit ñi yàlla def na euh, tardé na hmm. waaye aussi taw yi xaw na néew ci yenn béréb yi hmm. euh, boo seetee tey situation bi ni mu demee hmm. globalement maanaam booy jël ci réew mi yëpp taw bi fa mu daan toll tolluwu fi waxtu woo mu daan door ci béréb yu bare dooru ko ba nga xam ni am na sax ñenn ñoo xam ne ci yenn béréb yi hmm. dem nañu sax ba léeg ci yenn nji ji nañ ñetti yoon voilà muy ji yoo xam ne da ngay ji mu yàqu da ngay ji hmm. fekk mu taw hmm. ba tooy nga ji toog ay jamono taw bi yéex ba nji moomu yàqu mu tawaat bu baax nga jiwaat léeg-léeg mais yooyu ay kaala la mais euh, niñ ko mën waxee daal mooy nawet moom mbiru yàlla la te yàlla moom et <laughs> mooy comme ni ñu koy waxee fa fa alun lima yuridu moom la ñuy wax <laughs> alun lima yuridu boo koy boo koy tekki benn waaye nee na ma daal mhm. mooy daanaka maa tey lu ma neex lay def ko neex waaw léegi nag ci loolu mhm. et euh, bi mu nawet bi laata ñëw sax ci ministère agriculture et contrairement li ñenn ñi di wax mhm. ni gouvernement bi amul prévision déedéet gouvernement bi ca mois de mai jotoon na am information yu wér ci centre Agrimed bi nii la nii centre Agrimed bi nekk euh, fale ci ci ñaame hmm. nga xam ni euh, dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci sils yëpp ñoo ko ëmb information yoo xam ne ren non seulement nawet bi dana xaw néew hmm. mais dana tardé te euh, daal euh, dana dana xaw doy waar. d' accord kon dinañ ñëw léegi ci comme gouvernement bi yëgoon na ko. Ah. li nga xam ne moom la ci jël ay mesure ngir euh, dalal ñi nga xam ne ñoo ci nekk. alors yéen waa CNCR Diéry Gaye xam naa ku ne CNCR de yéen da ngeen nekk en contact quotidien wala en tout cas permanent avec ak ñi nga xam ne ñoom ñooy baykat yi situation bi ñu leen di wax ñoom ne moom la ñuy dund lan la. jërëjëf comme ni ko. ni ñu ko xamee. ñu ko ñu bari di waxee nawet mbiru yàlla la. ci sa kàddu gu njëkk da nga wax ne ndax euh, taw yi yéex na ñëw. tarde na. da euh, nga naan tardé par rapport ak lan. parce que ñun CNCR dem nañu tourner parce que at mu jot CNCR def ñaari tournée ci biir àll bi dem seeti ñooñ baykat yi nga xam ne ñoo askanoo ci moom ak ñi nga xam ne askanoo ci ñoom. tournée boobu bi ñu mujj def ñu ngi ko defoon ci mois de mai. Euh, yàlla dogal ñun bokkoon nañ si ñi nga xam ne ñoo féetoon booru Kédougou Tamba ak yooyu. mais ñun bi ñu demee Kédougou taw fekkoon nañu fa déjà au mois de mai. au mois de mai au mois de mai taw fekkoon nañu xam nga kon boo nee Kédougou taw yéex na fa dem taw dem na fa jamono bi mu daan demee. Hmm. xëy na nag ni mu daan tegloo fréquence bi mu daan tegloo. Hmm. pour nga xamante ni kii baykat yi bu ñu jiyee rek bu ñu amee taw boo xam ne li ñuy wax plus utile. Hmm. ñu mën see ji ñu mën a continuer ji mën a taw yi ba nga xam ne dina mën a yéwén xay na loolu moo am ay tolof tolof ko Youssou waxee waaw moo am ay tolof tolof mhm. mais déjà taw yi teel nañu ñëw mhm. si yenn gox yi yéex nañu ñëw aussi yenn gox yi mhm. effectivement ah, bi généralement fi mu nekk nii ci Sénégal yan gox lañ gën a nemmeeku ay jafe-jafe euh, wala fépp la euh, waaw maanaam dafa matale mais am na fa gox yoo xam ne ñoo tane yeneen yi am na yenn gox ci euh, sud si est bi Euh, à l'est du Sénégal comme lu jëm ci côté Tamba Kédougou jëm Kaffrine ak post yu mel ni ay Niassia yooyu am nañ nemmeeku nañ fi daal wax dëgg yàlla ñoom lañ waroon jot jot nañu ba xëy na sax am na lu stop mm-hmm. bokkul nag ak yeneen gox yi nga xam ne vraiment la ñuy waroon euh, teewul ci niñ ko bëggee donc li ñuy wax ay poste déficitaire booy seet dañ koy natta nag par rapport ak daaw. ak daaw jéeg li ñu waroon jot ci jamono boobu vraiment jotuñu ko. bu ñu nattoon li ñu waroon li ñu jot année bi ak lan doon jot. d'habitude waaw waaw ak siwul ak siwul ah, d'accord muy muy lu alors Youssou Diallo euh, fii ci Dakar en tout cas ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ci ci presse bi ah, bu période bu mel nii amee taw yéex a ñëw ñi dañ naan famille am. ñii ne diset moo am est-ce que euh, situation bi li li ñu nemmeeku ministère de l'agriculture nga xam ne yéen da ngeen ci def ay gëstu. Mm. li ngeen nemmeeku mooy période bii ñu toll nii. li li daan am ci ñu ko tuddee ko désert wala famine moo am ren wala dafa gën a métti euh, waaw ci euh, euh, ñàkk taw mm-hmm. wala taw boo xam ne dafa sutante dafa am direct ñaari conséquences yoo xam ne maanaam mm-hmm. yu direct waaw bu njëkk bi mooy e, bu taw bi manqué mm-hmm. ñax mi nga xam ne moom la jur gi daan dundee duñ ko eh, day ñàkk beneen bi mooy eh, ñi nga xam ne daañu teel li ñuy wax mboolu hmm. maanaam boo jiwee ba li ci jëkk eh, door di ñor hmm. muy dugub dugub ji ñu koy wax mboolu ñu lakk ko waaw wala wala lu mel na mboq dëgg la dafay tax hmm. baykat yi teel a am lu ñu dunde kon nag ñaari conséquences yu jëkk yi mooy boobu jur gi hmm. dafay am soxla lu mu lekk te du ko gis di doon teel a dund bi nga xam ne dencoon nañ ko mu nekk ci diggante jeex ak des tuuti hmm. dund googu léegi dafay am problème moo tax gouvernement bi loolu amee en plus programme yi nga xam ne defoon na ko pour euh, programme soudure hmm. dafa def li ñuy wax programme bu d'urgence. d'accord programme d'urgence dinañ. waaw programme d'urgence mais li li ñuy faral di dégg ma ma ba dellu si moo di ne euh, ci ci ci ministère sax ak ñi xam ne ñoom ñoo fale ci wàllu woowu. Hmm. dañuy wax ne euh, ñun xëy na ñi ne ci Ndakaaru xamuñu ñoom ñoo euh, waral wax ji mais ñi ne ci àll ñoom xam nañ ne buñ daan toll ci période bii ci année bi ci ci ci ci nawet moom nu ñu mënti def dina am li ñuy woowee période de soudure mooy lii ñu nekk wala leneen la. waaw ñu ngi ci maanaam li ñuy wax soudure. mën nga ni euh, boo tollee ci euh, fin juin. waaw euh, dëgg-dëgg soudure mi ngi ci dëkk bi fépp soudure dafay am parce que fin juin gisaguñu fépp foo xam ne daa fa ji même fi nga xam ne diggante Tambacounda Kédougou mm-hmm. jëm Ziguinchor boo ji bi bu teelee ba teel. Mm-hmm. ci début mi mai. mu fekk li ne li ne woon ci sàq yi jeex voilà du fekk du fekk te te amagul euh, lu ñu mbooloo comme li nga wax sànq. ma ma léegi nag fekk dund gi jeex. Mhm. et euh, fi mu nekk ñi ngi ci soudure waaye nag da soudure bi. Mhm. dafay gën metti ndax li taw bi ñëwul na mu war a ñëw. Mhm. et mu waral nag bi loolu amee gouvernement bi def na li ma lay wax. dinañ ci ñëw dinañ ñëw léegi alors. leen di waxtaan ak euh, mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo ne ci ci àll bi lan leen leen di wax que ni ñoom. période bii ni mu daan mel rek la mel wala xiif am na dëgg-dëgg ci ci àll bi bu gën a garaaw ba daan am xëy na. waaw hmm. xam nga euh, soudure mooy diggante nawet ak nawet. daanaka diggante bi ñuy jaayee hmm. euh, nawet bi paase. Hmm. ak diggante bi ñuy mbooloo si beneen nawet. diggante boobu mbay daanaka mbayam nawet du am. diggante boobu la ñuy wax li tax nag ren muy gën a gudd mooy. taw yu jëkk yi fi ñu waroon a ñorale meneen fi ñu waroon a mbooluwaate waaw période boobu dañ koy passé waaw maanaam tey bu ñu ñi jiwoon mois de mais juin tey bu yàlla dogaloon mu antu li ñu bëgg yëpp ci taw yi am. normalement bu ñuy jub septembre balay sàq yi jeex tàkk. voilà dina fekk am nañ am lu ñu jàpp. waaw loolu moo amul voilà léegi nag day fekk sàq yi jeex te fekk li waroon a ñor. si mhm. nawet bi ñoragul. wala amul sax. loolu muy muy du lu du lu bees. muy lu ñuy dund ay at yu bari bari Sénégal. est-ce que euh, wax dëgg yàlla Sénégal nag ingénieur ci ci wàllu agriculture yooyu bari na fi xam-xam bi. baykat yi am nañ ko est-ce que mës ñu xalaat xëy na ne bayee noo xam ne wala defee noo xam ne période de soudure bi su su exception amul comme ni taw yi tardé ren que ni balay sàq yi jeex fekk ñu am ci luñ téye mosuñu ko xalaat. waaw ñu de foofu CNCR liñ fi mas a liñ fi mas a wax naka jekk mooy euh, nawet moom sunu borom moo ko moom. moom kese jamono bu mu ko. na ma ko soobee la koy indee. na ndox muy toll tam moo ko xam. waaye nag yàlla dafa dogal jox na capacité nit. waaw ba mu ko bindee bind xelam. la ko jox euh, indépendance pour muy xalaat loo xam ne dina ko war a mën a jariñ. Mhm. loolu defe naa ne borom téere yi indi nañ ko si exemple yu bare bare bare bare ca yu bare bare indi nañ ko daal ci misaal donc ñun Sénégal li ñu mën a li ñu mën a wax mooy agriculture euh, pluviale mu ngi fii dëgg la am na. mais na ñu gën a euh, dooleel aussi agriculture irriguée. bañ hmm. a bañ a bañ a dépendre ci taw bi. Hmm. parce que taw bi suñu borom moo ko ilif su la ko joxee nga am. Hmm. su la ko joxul doo am comme c'est le cas. mais agriculture irriguée mooy li nga xamante ni kii waalo ndox nga fa. fii eh, gox yi ñu wër nii daanaka saa su na gox yoo xam ne ñuy tooy inondation nangam nangam hmm. mais war na am ay liggéey yoo xamante ni war nañ mën a taataan ndox boobu hmm. yóbbu ko foo xamante ni dina ko war a mën a jëfandikoo ba nga xam ne bu ndoxu taw amul it hmm. askan wi dinañ mën a bay am lu ñu dundee mën a euh, saafara alors bu bu période bu mel nii amee taw yi yéex a ñëw euh, ni mu ko waxee sax agriculture yi xëy na doole bi ñu yaakaar ne moom la war a am ci réew mi amaguñ ko ba léegi Youssou Diallo lan la état bi di def pour dalal wala boog li tubaab di wax allégé wàññi daal jafe-jafe yi nga xam ne moom monde rural bi nekkee. waaw kooku euh, euh, wax naa la sànq ni mm-hmm. euh, gouvernement bi at mu nekk ci politique am dafay prévoir maanaam fàggandiku soudure bi ñëw. waaw et ci ni nawet bi tëdd ak ni mbay mi li ñuy récolter tëddee ci lay projeté mm. ni soudure bi war mel. ba am loo xam ne dana ko prévoir par rapport ak année bi nga xam ni génn nañ ko loolu gouvernement bi defoon na ko et la commission nationale ne nga sax mois de mai xamoon ngeen déjà que ni fii lañ jëm waaw ci mois de mai mhm. xamoon nañ ni nawet bi mën na naawewet comme ni ñu koy wax maanaam du mel na mu war mel mhm. waaye nag dadi at mu nekk maanaam bu ñu bu ñu récolter rek eh, ak situation alimentaire bi ñu analyser ko daa ñu xam soudure bii di ñëw mhm. est-ce que soudure buy teel la maanaam est-ce que à partir du mois de mai war nañ di joxe vivre de wala xëy na mën na dem ba fin juin ma ak njàng et taw daaw lu leen joxoon taw daaw yi ba ñu euh, xayma li ñu li ñu bay daaw lan lan la joxe woon que ni bi dina yeex wala dina gaaw waaw li li mu joxe woon daal mm-hmm. mooy à partir de fin mai waaw ci zone yi nga xam ne ñoo nekk ci bët saalumu réew mi war nañ fa door di joxe dund ak zone bu nga xam ne dafa mel na Louga nga xam ne dafa sinistré woon daaw mm-hmm. ak yenn zone yi nga xam ne dafa nekk dans la zone un peu de de vers Matam yeneen zone yi ñu defoon prévision yi waaye nag bi ren euh, ñu duggee ci nawet bi nawet bi demee ni mu demee dafay non seulement euh, gën a yokk soudure bi ci ampleur mais aussi ci intensité moo waral gouvernement bi def programme d'urgence. waaw programme d'urgence ci lu mu toll. programme d'urgence boobu boo ko seetee tey jii ci wàllu njiwu yi nga xam ne joxe nañ ko mm-hmm. mooy ñi nga xam ne euh, dana gaaw a sax gaaw a ñor mm-hmm. lu mel na ñebbe lu mel na sésame mm-hmm. lu mel na sorgho ak yu mel noonu gouvernement bi daanaka dépensé na ci lu ëpp ñetti milliards d'accord ci wàllu dundu euh, euh, dundu dundu dundu dundu jur gi programme un milliard dégagé nañ ko ci wàllu euh, vivre de soudure yi programme bi euh, commission nationale euh, de la sécurité alimentaire bi nekk ci primature dégagé woon mmh. gouvernement bi renforcé na ko ci xaalis waaye nag fii ñu toll tembe mënuma la wax mmh. ci gouvernement bi. alors euh, sëñ bi yu Youssou Diallo tudd na li nga xam ne yëpp moom la gouvernement bi def euh, liñ ci liñ ciy taxaw rek xëy na mooy vivre de de soudure yi parce que ku ku biir bu dara ndewul du du tala dem di di di seeti tool yi lu fa nekk. alors est-ce que ci li ngeen di jot xibaar parce que dama dama yaakaar de normalement yéen euh, seen ñi nga xam ne ñoom ngeen di liggéeyandool muy baykat yi dañ leen remonter seen i jafe-jafe ba ngeen xam ci jafe-jafe lan la leen wax que ni li gouvernement bi di joxe ñëpp jot nañ ci wala boog. fan famille yu mu war a touché yëpp touché na wala ba léegi am na ay jafe-jafe. non boobu xibaar amaguñu lu gouvernement bi joxe. Hmm. parce que euh, juróom-benn fan ci weer bi lu mois 6 août. ndax sincère dafa baaxoo lu muy wax tam da koy teg ci lu wér. Hmm. moo tax le 6 août dañu woo suñu ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci 45 départements yi. waaw ñu ñëw toog. ñu ne leen sincère dafa wax si ne jox bataaxal nguur gi. Hmm. pour wax leen situation bi nekk ci àll bi. léegi nag yéen ñi nga xam ne yéen a toog ci àll bi. ñun ñëpp ñu bokk liggéey bi lan moo xew ci gox goxaan yi ngeen nekk. kenn ku ne wax ca gox goxaan yi nga xam nekk. la nga yi dund. Mhm. léegi nag ci dund ci ci ci xibaar yooyu. Mhm. feeñ nañ ne wax dëgg yàlla euh, ci li suñu mbokk Youssou wax. Mhm. lii gouvernement bi natt ne moom la war a def ci ay koppar ci wàllu jur gi ñu dey jàpp nañ ñu gën jaan néew war na see dugal lu mat ñetti milliards ci li ñuy jàpp. ci jur gi rek ci jur gi. ku dugal ñetti milliards ci jur gi kon war ngaa tudd ni doomu aadama yi war ngaa lu mu néew néew néew néew néew néew néew def juróom ci ay milliards pour jàppale leen ci dund loolu la ñuy jàpp ci xayma yi nga xamante ni ak information yi nga xam ne ak état euh, alimentaire yi nga xam ne moo nekk ci gox goxaat yi daal jàpp nañ ne loolu war naa war mën a dem pour dimbali leen ci ni nga xam ne noonu la ñu toog. kon daal yéen su su ma su ma su ma déggee seen wax li ñu jóge ci 45 départements yooyu ñëw wax ak yéen. li leen wax mooy euh, li bi joxe doyul. waaw non loolu moom du woon seen euh, seen cër naa état bi li muy joxe doy na wala doy. Mm-hmm. ñoom dañuy wax situation ba ñuy dund. Mm-hmm. situation ba ñuy dund. Mm-hmm. ñoom loolu la ñuy wax bi ñu analyser situation bi lu ñuy dund nag. si la ñuy jàpp ne wax dëgg yàlla li gouvernement bi xayma ne loolu fa war a dugal. bu ko yokkoon bu baax. ba ko ba tey nag euh, terewul ñoo ngi sant. gouvernement bi ci effort yooyu nga xam ne def na ko jëmale ko ci. li ñu li ñu li ñu jot a joxe parce que loolu moo ci am solo ndax joxe moom danañ koy dégg lu bari mais est-ce que li ñuy joxe jote li ñu nga xam ne moom lañ joxe est-ce que ñi ko war a jot muy euh, njaboot gi na ci jafe-jafe ce que ñooñu ma ngay àgg ci ñoom est yow wax nañ leen ne euh, suñu suñu njaboot gi jot nañ nangam ak nangam ak nangam jóge ci gouvernement bi ngir dimbali leen ci jafe-jafe vivre euh, soudure bi ñu nekk waaw xam nga seddale bu nekk moom mhm. foo mu am loo xam ne àgg na ak loo xam ne wax dëgg yàlla fa mu waroon àgg àggu fa loolu xibaar yooyu am nañ ko. waaye nag li wér ba wér mooy eh, eh, CNCR moom li nga xam ne moo siy wàllam. ñi nga xam ne ñoo ko toggal ci gox goxaan yooyu bu fekkee ne boole nañ leen ci tëral yi nga xam ne fa la ñuy jaar pour ndimbal yoom àgg ci askan bi hmm. dinañ si teg seen bët jàpp ci liggéey. war a àggee mu àgg ci ñi nga xam ne ñoo ko war a mën a jariñu su Diallo responsabilité wu fexe ba dund gi àgg ci ci ñëpp gouvernement bi la la moo ko gàlloo hmm. nan nan nan la koy defee ci ban yoon lay jaar yan mesure lay jël pour ku war a jot nga jot waaw kooku moom defe naa ni euh, jafewul hmm. euh, at mu nekk euh, bu ñu demee ba toll ci mois de fin début mai hmm. ministre agriculture am na arrêté bu muy jël ak euh, le ministre de l'intérieur pour taxawal li ñuy wax les commissions de distribution et de session des intrants du matériel agricole ak aussi ci ministère élevage danañ jël les mêmes mesures ba nga xam ni dafa am ay commission yoo xam ne ñoo nekk ci région yi ci supervision gouverneur yi waaye nag acteurs yi nga xam ni ñoo nekk dans le développement CNCR ak ñu mel ni ñoom. Hmm. ñoom ñoo nekk ci commission yooyu ñoo ko yore ñoo koy animé. Hmm. commission yooyu am ci rek am ci am ci moom buñ ci dugaloon buñ ci dugaloon CNCR. non xëy na dina mu mel ne su ma déggee. non non xëy ci. dama dama lay kii non hmm. ci lañ CNCR nga ci biir à tous les niveaux. dan la ko dëggalal maanaam ci région bi. ci département bi. ci arrondissement bi ba ci communauté rurale yi nga xam ne léegi ñoo nekk ay communes. kon nag ñoom ci seen bopp ñooy distribuer. Euh, euh, loolu nga xam ne gouvernement bi mettre na ko en place te ba suñu suñu bés tey bii mm-hmm. dégg gu ma benn contestation xam ne am na ci benn gox ci réew mi mm-hmm. ñu ni e dund ya ñu joxoon semence ya ñu joxoon mm-hmm. wala aliment de bétail ba ñu joxoon jaarul yoon d'accord kooku de vraiment Walfadjri laay dinaa ki faral faralu suivre parce que li may wax mooy booy seetaan Walfadjri daa xam réew mi xëy na li fi nit ñi d'accordul ak li ñuy ñaxtu loolu ko fi taxaw te nag gisaguma ko ci Walfadjri kon nag yaakaar naa ne amul eh, alors ñu taxaw xëy na euh, ci li nga xam ne moom moom la ñu watuwaa di wax alternative maanaam su fekkee ne taw yi dafa yeex am nii am na benn beneen genre lu ñu war a bayee beneen jiwu xëy na boo xam ne moom la ñu war a pour que euh, ñu am loo xam ne dinañ ko bayee te xëy na même bu taw bi bariwul euh, lool lan la war a doon jéeri gay waaw ñun hmm. jëmale ci jurgeek ci li ñuy waaw ci li ñuy lekk wax naa ko sànq. Euh, lan lañu war a bay. ni ñu war a bay mooy euh, war nañu gën a dooleel agriculture irriguée wax naa ko sànq. Hmm. loolu bokk na ci li nga xam ne alternative la comme ni nga ko tuddee. Hmm. bokk na tam ci euh, gox bu nekk xëy na gox yi bokkul. Hmm. dayo taw yi bokkul ci gox yi gox goxaat yi. war nañ borom xam-xam yi nga wax sànq war nañu mën a xereñe gox bu nekk. xeet jiw yi nga xam ne moo fa gën a méngoo seen euh, cycle li ñuy wax cycle. Mhm. maanaam yan jamono la ñuy toog pour meññ ak yu demee noonu. Mhm. yooyu war nañ ko war a mën a xereñe mhm. ba xam beneen bi ci des mooy gën a def doole tam ci li ñuy wax semence certifiée parce que sunu mbokk yi bi ñu ñëwee ci indi ñu ay xibaar. ne donte am na ay tolof tolof si yenn gox yi. Eh, eh, ñi nga xam ne dañoo ji jiwaat ndax am na Youssou wax na ko sànq. mais ñi nga xam ne dañoo dañoo jiwoon li ñuy wax semence certifiée ñoom daal globalement seetlu nañu bu fekkee ne ñoo. am na ñu tane ñu lay doon. semence certifiée mooy semence bi nga dañ ko xool ba ne bii moom baax na. waaw boobu moom dañ koo topp. bokkul ak semence bi nga xam ne dañuy dem ci marché bi rek. bu ñëw joxe. boo boo xamante ni dañ koo baylu topp ko suivre ko techniciens yi firndeel ne lii semence certifiée la. loolu dafa am njëg. loolu moo tax ñu ne nguur gi war na see mën a dugal loxoom bu baax a baax a baax parce que lool war a mën a maase ci réew mi pour que ñuy jëfandikoo ay semences certifiées. ok alors Youssou Diallo mi ngi wax ne agriculture irriguée tudd na ko sax xëy na loolu ay réflexions yoo xam ne dañ naan dans un avenir peu lointain wala. moyen terme gi demee noonu mais fi ñu toll nii nga xam ne nee nañ kët ne jonn mbir mi taw bi yeex naa ñëw wala bokk nañ ko yaakaare woon amewul noonu wala ñu xam ne ren taw bi du du bëri lan lañ war a bay ngir jur gi am lu mu lekk. waaye tamit ngir baykat yi am ci luñ mën a téye. waaw kooku sax dinaa ci ñëw mais dama hmm. bëgg wax tuuti ci euh, culture irriguée. waaw soo ko déggee dafay mel ne euh, gouvernement bi euh, dafa xaar ba taw ñàkk muy wax culture irriguée. Hmm. culture irriguée dinaa la wax tey jii ci suuf yi nga xam ni mën nañ ko irriguer ci Sénégal biñ ko xaymaa toll na ci quatre cent ba quatre cent cinquante mille hectares. Hmm. tey jii boo ko seetee lu tolloog boo ko xaajee ñetti yoon. benn xaaj bi maanaam à peu près diggante trente ba trente trois pour cent yoo xam ni ci culture irriguée la nekk muy à peu près diggante booru cent vingt mille hectares xam nga kooku macha allah takku na mais gouvernement bi dafa décider ci dans le cadre de li ñuy wax PRACAS le programme de renforcement de la cadence de l'agriculture de renforcer euh, mbayum irrigué ci d'abord irrigation boo xam ne dafay jóge ci dex gi muy ndox mu neex ñu jëlee ko ci dex gi indi ko ci ci tool yi. wala irrigation boo xam ne dañ koy def à partir de li ñuy wax ay forage agricole forage agricole yooyu nga koy fekk ci programme bi ñuy wax PRODAM. nga koy fekk ci programme bi ñuy wax euh, euh, les les domaines agricoles communautaires. mais aussi ay programmes yu mel ne PAPIL DEBRELA la direction des bassins de rétention et lacs artificiels donc. gouvernement bi structurel pour inverser tendance yooyu moo tax de ren. par rapport ak bu nawet mosaan demee nii mu demee nii euh, ñaxtu beeg coow li demewul na mu daan demee mais gouvernement bi dafa ni dama koy renforcer pour mën a sécuriser suñu agriculture ba nga xam ni et ci loolu bi situation bi amee non seulement programme structurel yooyu dañ ko accompagner programme d'urgence mm-hmm. programme d'urgence bi mooy conseiller d'abord nit ñi nañu moytu def nji mu teel mm-hmm. parce que nji teel nji mi mën na yàqu ñaareel ba na nit ñi utiliser ay semences sélectionnées semences sélectionnées yooyu na nekk li ñuy wax ay variété maanaam njiwu yoo xam ni njiwu yoo xam ni du du yàgg mu ñor ay variété à cycle court maanaam lu mel na ñebbe lu mel na sésame lu mel na sorgo ak lu mel na yeneen genre culture yi nga xam ne culture mën na la manioc ak yu mel noonu en plus de yeneen cultures yi parce que buñ ko seetee nawet bi yàqoowul fépp fi mu gën a am accent ci euh, euh, ñàkk taw bi hmm. mooy li ñuy wax la partie bi nga xam ne moo féete ci sowu jant sowu jant nekk ci diggante euh, zone bi nga xam ne xëy na ndar lay doore hmm. jëm ba balaa ngay jot Ziguinchor dem vers la partie centre hmm. un peu mooy la partie centre nord maanaam diggante Louga ak yooyu kii mais parti yi nga xam ne jëm jóge na ay Bakel. jëm jëm Tambacounda. <laughs> Hmm. jëm comme ni mu ko waxee jëm Ziguinchor Sédhiou ak yu. nawet bi xëy na euh, demeewul nam daan demee at yee mais macha allah mbay mi mi ngi mi ngi am un bon comportement. d' accord alors eh, eh, euh, seen mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo féete ci ci zone yi nga xam ne moom la tudd léegi que ne ndox mi demewu fa noonu est ce que lii ñuy woowee variété à cycle court est ce que ñoom ñu ngi koy jot est ce que ñoo ngi koy liggéey ñoo ngi koy ñoo ngi koy ji. wala ña nga sax ca gerte ga ba léegi. <laughs> waaw ñu bon xam nga <laughs> gerte moom. mooy sunu. waaw parce que loolu Sénégal nag dafa mel ni gerte moom dara dara tax ñu bàyyi waaw waaw waaye nag wax dëgg yàlla. Mhm. ñu ngi jëfandikoo semence à cycle court yooyu. Mhm. xëy na yaatoowul. parce que ñu nga sa lañu ñu miinoon. Mhm. waaye lu ñu leen bokk na si suñu mission. di leen sensibiliser pour ñu wéyal lool gën a ñaax ci utiliser semence certifiée wax naa ne sànq dafa am njëg hmm. waaye nag njëg gi tolloowul ak li nga xam ne moom la nga fay jëlee dëgg dëgg dëgg dëgg doon na jar hmm. nga def njëg ci semence certifiée loolu nag yaakaar naa ne nguur gi war na si mën a jàpp hmm. bon ñun producteur li ñu siy jàppe mooy xelal ñaax wan surtout njariñu semence certifiée lan la leen mën a indil comme njariñ surtout li nga xamante jamono yi nga xamante ni kii euh, ndaw bi dafa am tolof tolof. loolu dina leen mën a dimbali bu baax a baax. Youssou Diallo pour jeexal rek. ci seen rendement pour jeexal rek ci benn baat. Mm-hmm. soo joxee euh, euh, semence à cycle court comme ni nga ko waxee sànq yàlla moo yor tawam di ko taw nu mu ko neexee mu jékki-jékki taw lu bari du ko yàq. déedéet du ko yàq. du ko yàq mm-hmm. moom moom di diir bi rek. ci am solo yow mi nga xam nag yaa koy waaye ndox bi amul solo yaa yaa seet na koy na koy et bu ñu ko defee mm-hmm. bàyyi leen gerte gi déedéet mooy diversification xam nga boo diversifier da ngay disperser les risques donc xam nga bay bay gerte rek wóorul bay gerte ak leneen maanaam waaw ma ngoog bu bu lépp bu lépp baaxee mhm. nga gañe bu amee lu xaw sooxe nga am ci loo jafon d'accord Youssou Diallo maa ngi lay gërëm bu baax di fàttali ne ci ministère de l'agriculture nga nekk conseiller technique nga fa sax da nekkoon ci waxtaanu tey ak Diéry Gaye moom mi ngi bokk ci CNCR mbokk jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen àndoon ak ñun ba beneen yoon incha allah ci débat du jour